الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب الباب هذه عشرة لمي بنت فكك بين البي تمام بنت بمجري في بيان جمل ci leral luñ dajale min farali ci ay farata wa sunna ngay sunna wa da bay tegin dafay leral ay farata ngay sunna ngay tegin wa ta'ayinu dana raññal muslimi ci an yumina mu gëm baana laa ne yàlla ilaahun buur la waayun kenn laa sharika yeqare bokkaal la di ko ñeel fi mulkin ci nguuram julit war naa gëm ne yàlla kenn la kenn wul koo bokkaale dara ci nguuru yàlla gi bulaa nasee d nend la di ko ñeel ci sifatin ci melokaan min sifaati uluhiyya ci melo yàlla yi julit war naa gëm ne dégg nga yàlla amul kenn ku den ak moom ci melo melo yam xamee dégg nga wayaana mun na xamal na li jamil mawjudaat ni ñeel na mboolem yi xam xaaliqan ji bind lépp lu nekk am na ku ko bind koo moom waajibul wujudi mooy ki war a xam asaliyun mooy ka jug cooy abadiyun mooy ka jug foow maanaam ko yàlla am am rasamaa def moom ñàkk waaye it xamam gi amul fu mu commencé dégg nga te yàlla gi amul fu mu amul yem dégg nga loolu moom jullit bi xayun aji dund moom yàlla bi xayaatin ci dund yàlla aji dund la dégg nga waaye dund la xaadimu aji attan la bi qudratin ci kàttan aji attan la waaye attan melokaan la muriidun aji coobarew la bi raadidun ci coobarew moom it noonu la aji coobarew la waaye coobarew melokaanam la aalimu aji xam la bi almin ci xam-xam sama aji dégg la bi samin ci dégg basirun aji gis la bi basirin ci gis mutakallim aji wax la bi kalaamin ci wax yëpp mu ngi koy def loolu melokaanam la wax melokaanam te mu ngi wax dégg noonu la gis noonu la dégg nga xam noonu la dégg nga waan na sifaatu na melo yàlla yàlla dem ba tey waajibatu wujuhi lu war a xam la melo yàlla yëpp dafa war a xam te taxalluq dana aju bi jamel jisiyaat yi ci mbooleem xaaj-xaaj yi wal kulliyaat yi ak lépp wal mustahilaat ak jommi wa xeeya ak loolu melo yàlla yi daal dafa aju ci mbooleem xaaj-xaaj yi ak yëpp ak ak ak ak yi jomb yeeg yooyu ni ki yàlla aji xam la waaye yi jomb ak yi jombut lépp yi boo ko dajalee ak boo teqalee mbir yëpp yàlla xam na ko xam nga yow boo dajalee eh, eh, eh, pepp mu bari mën ngaa xam ñaari kilo waaye waaye mënoo xam dégg nga ñaata tepp la yàlla na moom xam na ñaata kul la xam na tepp la xam na jusiyaat yi xam na kuliyaat yi waaye nag nag yàlla taala kawe na waahidun kenn la fi zaati yi ci dem ci jëmmam laa nazira di rek nend la di ko ñeel waa noonu nag yàlla laa seen xuduyee waa ne baasata jaamu xeeroo ku dul moom waa ne jamee rusul yi nag mboolem yonent yi salawaatu laahi xewal yàlla wa salaam mucc ma lim yàlla nekk si ñoom mu sadakoon ñun dëggal lañ si maa jaaw si liñ andi nañ ko bii ci moom yonent yëpp lañ andi dëgg la waana Muhammad naka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dana ko musal abdou jaam yàlla wa rasulam yonentam waana jamee maa jaa naka mboolem na andi na bii ci moom yi moom yonent bi lépp lu mu andi xaqun dëgg la wa maa axbar la xibaar na bii ci moom sikkun dëgg la min adaaba qabri laala moom mbugalam bàmmeel la wa axwaali ak mbiru bàmmeel wa qiyaamati ak eh, yowmal qiyaamati wa ahwaali ak tiitaangeem wa min siraat ak ci siraat wal misaan ak balaas ya wa jamee mu xëy baat ak mboolem ya fàddu xanaa wala ci lépp lu ñu yonent bi xibaaral ci te gisuñ ko dañ ko gëm moo xam bàmmeel la wala mbiru bàmmeel ni ki euh, laaj ñaare malaaka yi ak yowmal xiyaamati ak kiitaange yi ci yonent wax ak siraat ak baraas bi ñuy tese jaam yëpp nañ ko gëm wala a ak aljana wa naar ak safara waa nañ gëm na macha allah na soob ne lu soob yàlla kaana nekk na wa maa lam yasha lu soobul yàlla lam yakun du nekk waa na limaan ne gëm yàlla intiqaadul fasla ci xol wa nutqun ak tudd bi lisaani ci làmmañ wa amul ak jëf bi jawaari cër nañ koo gëm maa na kalaamulaay rek wax yàlla taala kawe na xaayam naa ji taxawal bi zaati ci jëmmam wax yàlla ji melo yàlla la boo xam ne ma nga sax ci jëmm yàlla ji bokkut ak nag alquran ji yi nga xam ne moom lañ bind kooku moom dëgg la liy wax yàlla ji di wax rek la la alquran ji di tegtal liy wax yàlla di tegtal la alquran di tegtal waaye nekkul ne lii ñu bind mooy dëgg-dëgg wax yàlla ji man su ma waxoon rek ne jaa dikk na Muhammadul Muhammad yow man nga ko nettali waaye sama wax ji dëgg-dëgg moom mënoo ko nettali la ma wax rek la muy tegtal loolu nga nettali tamit mu ngi mel ni benn la waaye sama wax ji dëgg-dëgg moom si man rek la mën a génnee bu fekkee man rek maa mel noonu mën a wax joo xam ne man rek maa ko mën a wax keneen mënu koo wax loo xam nag ci yàlla mi nga xam ne moo bind nit ñi loolu nag léeg-léeg yi gaa yi daan nañ ci dem daan nañ ci dem ba xam ne ba wax wax ju rëy ne may na ma loo xam ne nii ko koo ti keneen te du ko mayeti keneen sama kàddu gi rek génnee ci man man rek maa ko mën a wax kenn xamu ko te kenn dootu ko amati <coughs> loolu macoo yu bari jaar nañ alquran yi mahfuz nañ wëttu la fi suduri ci dënn yi makruun nañ jàng la daal sent ci làmmañ yi maktuum nañ bind la fil masaahif ci kaamil yi alquran nag wax yàlla waaye yàlla daf ko bind mu nekk arab joo xam ne dafay tekk dëgg-dëgg wax yàlla ji nekku na mooy dëgg-dëgg wax yàlla ji di ko loolu la nañu mokkal ci dënn yi di ko jàmm jàngal ci làmmañ yi di ko bind ci téere yi waana laa naka yàlla taala kawe na yaraaw dana gis al muminuuna jullit ñi way kenn moom dana wax ak ñoom waane yataqilu nafas ana xeeral xuraan na gën ci ma saxaabatu mooy saxaaba yi su mën leen topp ñi nga xam ne yoroonoo ménga nañ leen su mën leen topp ñi nga xam ne yoroonoo ménga nañ leen na gëm ne yàlla julli ñi dañ ko gis am yomal xiyaamat yi te dana wax ak ñoom dégg nga dégg nga na fas ne maas jëm ci maas bi mooy saxaaba yi topp ña topp saaba yi mooy taabi ni topp ñu topp saaba yi mooy taabi taabi yi waaye naa doon na gën ci taabi ci saaba yi ba gën nga xam ne ñi gën ci saaba yi abubakar mooy abubakar tuma omar topp omar tuma osman topp osman tuma ali topp ali waaye jibi dana war alkafu fekk an dikkiin ci tudd leen ñoom saaba yi illaa bi xëy na mooy ci lu baax saaba yi kenn wut leen tudd lu mooy lu baax fasul yaa fasal lan asalaat julaa nabi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye wutul lu war la fi omri ci dund bi maratan benn yoon julli ci yonent bi war na ku nekk benn yoon ci dundam boo jumlee ba gën a àdduna te julloo ci yonent bi xam nga bakkaar wa taxamu dana xaraam xiraatu quran jàngal quran bi tarhim yi ci eh, daaj yi nga xam ne nii dafay waral nga xëcc loo war a xëcc wala nga bàyyi loo war a xëcc ni ci kuy musique nga xam ne léeg-léeg woy wi dana tax nga xëcc loo war a xëcc wala nga wala nga gàttal loo waroon a xaw a guddal loolu dafa xaraam ci alquran wal xiibata ak jaww dafa xaraam wal namimata ak rambaaj wal kasiba ak fen wal xasada ak añaan loolu yëpp dafa xaraam rambaaj nag mooy jaxal diggante nit ak nit jëw mooy di tudd si gannaaw nit ki lu ko neexut loolu dëgg la fen nag mooy safar nit ki rek xañaan nag mooy mu am xewal nga bëgg mu ñàkk ko wala xas bu ak këf dafa xaraam wari baa gi baa dafa xaraam waakulaam walaat ak lekk xam nit ñi baatiliñ ci axaan dafiñ say tappale rek ba jël xal nit ñi lekk ko da nga xam ne lekkoo lekkoo waral nit ñi waaye sa bopp rek ngay lor ndax lépp loo lekk amwaalukum seen alal baynakum seen diggante bil baatili ci neen maanaam ci lu xaraam ay mas nam bil xaraam ci lu xaraam ndax nit ki ba lekk àllam wala yaa ko fu doole jaay ko doole ba lekk àllam yooyu yëpp na nga xam ne yàllaa ngi gis te dana attee te ko fay te loolu lu xaraam la ku ko def am nga bàkkaar boobu la mi naa bokk na si am suuf tu ngir nger nger si lekk àllu nit la caaxaan lan mooy nger wa minu bokk na ci dana wax lan mooy nger wa minu bokk na ci akulu maal yi tiim lekk xal lu jirim xaala woon Allah yàlla taala kawe la naka gaa ñi nga xam ne yaakuloon dinañ lekk am waala yataama al lu jirim yi zulman ci tooñ innama yaakuloon naka lekkuñ fii butuunim seen biir yi naaran lu mooy safara wa sees la woon te xal sanañu dugg saayiran safaraay saayir ay aqibatu amri mu jëg seen mbir daalika loolu akbatu amrihim zalika mu jëg seen mbir moomu maanaam alal dañu ñuy lekk fu mu leen mujjee mooy fi naari safar rek la ñi nga xam ne ñu ngi lekk alalu jirim ci tooñ na nga xam ne seen biir safara lañ ciy lekk te dugg safara dégg nga maanaam la lekk seen biir bi moo leen yóbbee safara rek safara rek ci la leen mujjal kon mu mel ne ñoom safara lañ doon lekk te yëguñ ko dégg nga <coughs> lekk alalu jirim daal lu bon la euh, rawatina waaye lekk na alal ju xaraam bon soxna laa fasala la wa min a'zami suxati bokk na ci li mag li gën a màgg ci ngeer rishwat rishwatu neexal fil hukmi ci atte ngeer bi ci gën a màgg mooy neexal ci atte xaala wax na annabi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom ne kullu lahmin bépp yàpp nabata boo xamee saxee na ci suuxati ci ngeer fa naaru safara wala mu gën a bi ci moom yàpp woo xam ni ngeer lañ ko suuxatee yow daal doomu aadama yi al ngeer ci nga lekk ba màgg su boobaa safara moo gën a yee ci sa Hmm. قالوا وحنا يا رسول الله إذا نتي على بي وما صوت يرمي نجر قالوا من أرشفة ما ينهل في لقمة أك وقالوا وانا صلي عن درق الله يلا عليه سمهم وسلم أبدالكم سيدنا نتي بنيانا لعن ربنا الله يا الله الراشي أجنجر جي والمتشي أك دنجا أجنجر جي كي أخبنا نيو مويساكو نيو أنجركو أكي جيخ يب يا الله ربنا يلا وبهذا التفسير جبي تفسير قال حسن حسن وقتاله قتاله مقاتل ak muqaasim ñoom ñëpp nii lañ ko firee ger daal mooy jël ci atte wa qaala woon ibnu mas'ud ibnu mas'ud moom wax na firi bu gën ne assuutu ger arisatu lu nekk lépp looy def rek boo si joxe alal rek ibnu ibnu mas'ud nee na loolu nger la nekkul neexal ci atte rek wa qaala woon aydan ba tey foo moom an yaqliya mooy fay arajulu mooy mu faj arajulu góor li àq ñeel mbokkam xaaji dan aaja fa yóodi mu haddiya ilay ci mu haddiyatan aw hadiya nga defal sa mbokk dara ba pare mu am lu neex la jox la kado ibnu mas'ud nee na loolu moom moom moo ko gën a diisal kii ñu wax loo ñëw ko yaa ba Abdourahman yow bàyyi Abdourahman maa kun naa nekkul na laa di bi zaalika loolu maanaam nger di leen axlu ba mooy jeexal yokku na ci àtte ñun daal nger lañ ca mooy rek ñu neex la ci àtte wa xaala mu ne alaxlu jeexal yokku na ci àtte kufur ni xéeféer la at nga war a àtte nit ñi ba pare jox ñu jox la xaalis ba pare nga door a àtte loolu moom weddi yàlla ndax xaala woon na laa yàlla taala olaay te ñooñu ne gaa yi ñu yomal kaafiroon ñu yéeféer mu noonu la ko déggee fàttewu ci bi yàlla wàcc rek xéeféer kon ku jël ci ngar kooku xéeféer la waaye ngar daal mooy nga dégg nga mm, mm, fajal sa waay xaajo dégg nga su ko defee jox ko ci dara dégg nga wala nga neexal ci lépp lu nekk rek lépp lay wut rek boo ci neexalee rek moom nee na loolu ngar la wa qaala woon abu xanifa abu xanifa radiyallahu anhu yàlla gërëm ko ne da tasa nam ngar na alxakimu ajaata ji naam sara beru na fi waxtu ci waxtu wa wéra men azil bu garawut ba tey yàqu na kullu xukm bépp atte yàqu boo xam ne danaa bii ci moom baada zalik gannaaw loolu Abu Hanifa ki na kii atte bu fekkee dafa jël nger su boobaa moom solleeku na bu fa jugee wu nit lu ma attee di baaxatu qaala wana al-Qurtubi imam Qurtubi ne wa hada lii laa yajuuzu dara li ahadin ñel kenn an yaxtalifa mu wutee fii ci moom insha Allah bu soobee Allah wala taala taala lii nag kenn wuru cee wutee borom xam-xam ñoo ci war a dëpp ko laa ndax jël nger fiqun kàccoor wala laa yëngatu dagan kooku mu àtteem ku jëm nag ci àtte kooku saay saay la te saay saay nag wax dëgg yàlla àtteem baaxut dégg nga Ibnu Mas'ud sax gën na koo diisal ne moom kéeféer la dégg nga waaye man nga àtte na ne saay saay la te saay saay àtteem dégg nga dagana sut àtteem saay saay moom baaxut moo tax li Ibnu Abu Hanifa wax ne ku jël ngeer loo àttee ci baaxut boo boo fooleekuut loolu moom kenn wër see wutee wa summee tudd nañ almaalu alal alxaraamu ju xaraam manam maanaam nger ak baat li ñu firi mooy li nga xam ne moo yóbbu mbir mi la andoo nax nger nger nga surtout day yóbbu ak tàngaati topp yàlla heure nga xam ne yusuf waa dana ko demal westasiroa mu faagaagal ko ba mu jeex takk dégg nga xalal ji xaraam dañ ko tuddee soxtu soxtu mu ngi jigéen ci lu yóbbu dara faagaagal ko mu jeex takk ndax xalal ji xaraam dafay yóbbu topp yàlla yëpp di ko demee ak atahu mooy faagaagal na ko rek demee na ko rek comme que xalal ji xaraam dafay yóbbu topp yàlla yi di ko faagaagal loolu wala ñu tuddee xalal ji xaraam جوجنجر وقد قال وان الله يعرف تعالى مكيمن ثم يتفرق يدي بالإيمان سيقم يالله فقد حبت سيكون عمر وجفهم وهو تفاكمهم في الآخرة تعالى من الخاسر من بوكس وفاتي كي لو أن يكون يدي قم يالله ميكان كي لو أن هو الذي ميكان يخمني يحلل دانا لغن الأحرام والأحرام ويحرم محرام الحلال لغن كي لغن الله حرام دهرام الله لغن كوكو يدي قم يالله كوكو جفهم يدي أقنا تعالى خرام من بوكس وفاتي faslun li ab fasala la wa tasmiyat wax bismillah xendal akali si jamono lekk wa surga naan mustahabatun luñ sopp la booy lekk wala nga naan nga wax bismillah loolu luñ sopp la wa tahmid wa alhamdulillah nga intaay boo paree kooku it luñ sopp la wa yakul na rek way sabu na naan bi yamini si ndey jooram wala yan fuk bu mu tab bu mu wal ci taami si ñam di lekk ñam di wal baaxut wa sharaabi ak naan bu mu ci wal wala it nafasu bu mu nooyi fi inaay ci ndab li yooyu yëpp dëppoo ak sunna wala baasa aayut nag bi sur bi ci naan xaayiman daaji taxaw taxaw naan moom dara nekku ci wa yaxrumu dana aramal rijaali ci góor ñi lubsul xariiri sol soy waxuma rek soy waaye wal julus ak toog alay ci moom waxuma rek sol soy waaye toog ci kaw soy sax dafa xaraam wa taxatum ak jaaroo bi zahabi ci wurus wa bi maa ci li nga xam ne fii na di zahabu wurus ak nu mu tuuti tuuti wurus kenn du ko def jaaroo loo xam wurus wurus tamit kenn def jaaroo way saabu sopp nañ an yëpp daaw mu commencé fii lu si naax lii si sol dàllam bi yum ci loxo ndeyjoor ci tànk ndeyjoor wa fii xale yi bu koy bu koy summi bi li soxla ci tànk càmmooy sol dàll na nga njëkk a sol ndeyjoor booy simmi na a càmmooy yi nga xam ne xewal la ñu kenn lay joor yii niru dama xewal nag ñu kenn càmmooy booy dugg duus njëkkee dugg sa càmmooy booy génn lay joor dégg nga booy sol yére njëkkee sol nday joor booy simmi càmmooy dégg nga ndax simmi dafa xaw a kii dugg duus yi dafa xaw a kii moo tax ñu bëgg nga njëkkee dugg tànk càmmooy booy dugg waaye kër moom booy dugg booy génn nday joor jàkka nag booy dugg nday joor booy génn càmmooñ wala yamsi bu mu dox fii naalin ci dàll waahidin benn kooku bu ko def wala yekk taxaw fii ci moom illaa li darutin lu mooy ngir lor dégg nga taxaw ci benn dàll it dañ koo sib li nga xamee dañoo sib dox ci benn dàll lu mooy ngir lor wa yaxrumu dana xaraam alay bu foo di sataran ji ci babi yi xam ne daal saalu kàtt yooyu nit di ko def yooyu dafa araam buñ ci tegee bu fekkee dañ cee teg ku gañee jël muy babeeg dam ak yooyu su boobaa dafay bu fekkee ne teguñ ci nag dañ koy sib su boob su fekkee kenn tegul kon noonu la buñ ci tegee moom sib nañ ko su buñ ci tegee xaraam na bu fekkee teguñ ci nag ñu daal di ko sib da ko noonu it dañuy xaraamal koy def nga toog fa wala nga di leen nuyu waaye nag bu fekkee ànd ak naa teg bi bu fekkee dañ koy sib rek nga xam ne teguñ ci dara su boobaa it dañuy sib nga toog fa rek wala nga romb leen di leen nuyu ñoom fokkati caaxaan yooyu wa yaxram dana xaraam wa taswiru photo ala sifati insaani wala loo ne xayawaan ak ci xayawaane waxuma photo yi nga xam ni moom moom lañ xam waaye dessin lañu wax dessin jëmm ji carrément waxuñ boo dessin jëmm ji ko ak ay bant wala xeer bam niroog moom su loolu dafay araam lépp loo xam ne na ruuxu desee na ko bam nekk jëmm ju ne loolu moom dafay dafay xaraam dégg nga amaa nga def ko ci ay ah, yére yooyu moom mën naa nekk dégg nga wala ci mii noonu waaw waaye defee ko moom nekk jëmm ju ne lémb moom xam ab ker dégg yi daal di mat su boobaa loolu dafay dafay dafay xaraam dégg nga kon daal man ngaa jàpp ne daal soo fekkee da nga koo defee lu am daal soo ko defee ci bant wala ci ay xeer yett ko bam kii te manquut benn cër boo xam ne bu ko manqué dund fekkee dafa manqué cër boo xam ni bu ko manqué dund xaraamut waaye boo ko defee ci këyit ak yu demee noonu loolu xaraamut de waaw faslu li ab fasal commencé bi salaam ci nuyoo sunnatu sunna la nuyoo sunna la warab du delloo nuyoo fardu kifaaya mu farataay bokkaate la delloo nuyoo nag moom farataay bokkaate la bu ko ñeneen ñi defee wàcc nañu def kon delloo nuyoo moo gën a dëgër nuyoo it sunna kifaaya la bu ñenn ñi nuyoo wàcc ale qoome wal mubtada ji commencé ñu ne asalaamu jàmmaaleykum yàlla nekk si yéen aw salaamun wala jàmmaaleykum yàlla nekk si yéen mën naa wax asalaamualeykum wala salaamualeykum waaye xool na wax raado aji delloo nuyoo yee mu ne waaleykum yàlla nekk si yéen asalaamu jàmm aw wala mu ne asalaamu jàmmaaleykum yàlla nekk si yéen kuy delloo nuyoo mën naa waaleykum salaam wala mu ne asalaamualeykum wayu ko danañ ci taqbilu yeddi foon loxo fi salaami ci nuyoo foon loxo dañ koo sib wala yusallimu du nuyu ahli ala ahli ahwaay si ñooñu bànneexi kal mu'tazila ñi ki ñu beru war a waa fii ak waa ay kuréel lañ lislaam boo boo xoolee <clears throat> mu'tazila yi ñoom ak waa fii seen i pas-pas dafa wuteeg pas-pasu ahlu sunna maanaam ñi nga xam ne nii seen i pas-pas dafa wuteeg pas-pasu ahlu sunna ñoom ñëpp dégg ñooñu. jërul booy ndombee bu leen nuyu ni ki Mu'tazila ak Raafidi dégg nga dañ ne war a gàddaay te moytu leen ànd ak nga xam ne ñoo nekk sunna chiens yi it noonu la chiens yi boo leen rombee jërul nga leen nuyu ndax dañoo wuteeg ñoom sunna de yëmul rek ci Mu'tazila ak Raafid ñoom ñëpp ay kuréel lañ yoo xam ne daal seen i gëm-gëm dara dafa wuute ak sunna ak chiens yeeg yëpp boo leen rombee waru leen nuyu dañ leen war a gàddaay wala ala ahli la yu di caagi ñooñu xaaral tola bu suñ jamono bu ñuy làmboo bii ci fo ji ba ñuy fo waroo leen a nuyu kalaay bi satran ji ni ki kuy fo ci babi waxoon naa la ne babi bu yéen karta soo baa dafay xaraam kon ñoom war leen rombee nuyu leen loolu dafay xaraam rek laa wax de wala doodu commencé àla zimmati ñooñ ko nere bislaami ci nuyoo ñi nga xam ne yéefee lañ dooleen njëkk a nuyu way sa badu way sa badu buñ commencé radde na delu xaalim si ñoom bi xeeri waawuñ ci lu waaw dégg nga bu fekkee ñoom ñoo la njëkk nuyoo mën nga leen fay waaye bul wax bu ma am waaw waxal aleykum rek dégg nga waxal aleykum rek liñ wax laa waxal aleykum dégg nga noonu nga leen a fayee walaa walaa yu sonn duñ sun naan asalaamu nuyoo ala musalli kaa ñu julli kuy julli kenn du ko nuyu su ma daa sallama waaye duñ kenn mën a jamaati ci mbooloo ajjaa doy naa nun walis leen bu dee mbooloo ànd kenn nii loolu doy loolu waxoon nañ ko wa kazalik ne ko nun isaar di nem kenn minum si ñoom bu fekkee mbooloo kenn ci delloo nuyoo ko it doy na way sallimu dana nuyu raakib aji waral maaci ci aji dox wal maaci aji dox alal xaayri ci aji kuy dox moo war a ku war moo war a nuyu kuy dox kuy dox moo war a nuyu kuy toog kuy romb moo war a xale moo war ni yu mag dégg nga noonu la noonu la de demit de wala jus dagan li ahadin ñeel kenn an yadxula mu dugg ala ahadin ci kenn baytoo këram ataa yastadina batu mu diisoo alay ci moom kenn waru dugg kër kenn lu mooy mu diisoog moom maanaam diisoo gi mooy mu fëgg bunt bi wala mu nuyoo bañ wax ko duggal mu door a dugg wa sifatoo melam du diisoo bi an yaqula may wax assalaamu jaamu aleykum yàlla nekk si yéen aadxulu ndax ma dugg danaan asalaamaaleykum aduxulu mooy nax ma dugg asalaamaaleykum jàmm yàlla nekk si yéen aduxulu wax ko ñetti yoon waaye saa dina dana diisoo salaatan ñetti yoon wala yajibu doo leen albaale gis ñetti yooyu ilaa yaxlima lu may mu njot lu may mu not ala zanni si njottoom adamu samaay ñàkk déglu <coughs> ñàkk dégg dégg nga du nuyoo lu ëpp ñetti yoon dana diisoo ñetti yoon buñ ko waxee dugal baax na buñ ko waxee buñ ko waxut dara nag mu dem lu mooy mu njort ne ñii dañ koo déggut bu dee nii la ñetti yoon waaye yaakaar na dañ koo déggut su boobaa ko ne ba mu wóor ko ne dégg nañ ko suñ ko fayoon na dem nag xam ne kii dafa jàpp way de sa sana buñ diisooyee eh, fa xii lañu wax loo ñeen ko mën a haasa kan mooy kii maanaam kan la fali sammi na tudd naf soo boom naf soo boom bi mi ci tëram aw bi maa wàcc na xam ne yoon fa danañ ko xamee bii ci moom mi ne ku bu néewee ñu ne ko kan la na wax leen diw waxtur woo xam ne moom lañ ko xamee wala mu waxtur dàkkantalam sax waaye daal bu mu noppi rek bu néewee daal ñu ne ko kan la na wax daal loo xam ne dañ xam ne diw la waaw waaye bu mu wax man rek bu dee man la kenn du xamut luy man la wala yaqul mu wax ana man dégg nga waaw <coughs> dégg nga boo xoolee borom sara bi ne solo nañ ci jaabir jaabir nee na damaa dikk yonent yàlla sallallahu alayhi ma daal di ko woo mu ne yonent man haaga fa qultu ana ma ne man fa xaraj yonent bi daal di génn naan ana ana ana maanaam dafa lan mooy ana maanaam dafa woo yonent yonent ne ko kan la mu ko ana yonent génn naan ko ana ana ana maanaam dafay weddi ana jaabir googu dégg nga waxal man la diw waaw wala nga wax diw la wala nga wax daal loo xam ne la ko xam ne waaye ana moom kenn xamu mooy lan wala wal musaafaatu saafu wante xasanatun lu rafet la mooy joxante loxo wal mu aanaqatu doq wante rek makuraatun ñu sib la yenn baalim fa ñeen ci borom xam-xam yi de doq wante moom yenn borom xam-xam yi dañ koo sib wal xublatu foon fil fam mi ci gémmeñ mu ne rajulu jigéen ci góor ilaa rajulu jëm ci góor laa ruxsata déet yombal fiyaari ci nekk foon ci gémmeñ diggante góor ak góor kooku moom amul benn yombal dégg nga rawatina diggante góor ak jigéen ku ko gën bon bu dee góor ak góor nag bu fekkee daf see jublu bànneex mu xaraam bu dee jublu si bànneex ñu sib ko dégg nga jigéen moom laal ko rek dégg yaram yëpp xawar la waroo dem di ko laal loolu dafay xaraam moom jigéen ak jërëm jigéen fonante dafay xaraam si gémmeñ jigéen ak góor fonante si gémmeñ dafay xaraam góor ak góor wala jigéen ak jigéen ko si jublu bànneex moo xaraam buñ ko si jubluwul ñu sib ko façon la fasala la tasmiyatun aati si ndokkeel aji tasoo yi waajibun war la karat islaam yi ni ko delloo nuyoo ndokkeel ku tasoo yi dafa war delloo nuyoo it dafa lan mooy ndokkeel ku tasoo yi woowu moom xaw alqawlu mooy wax li la aati si ñeel aji tuddal ne ko yaa xam ko yàlla yërëm la laaw yàlla nga wax ku tuddal ne ko yàlla na yàlla yërëm loolu mooy ndokkee ku tuddal dafa war wajawaabu tontu ba mustaabu liñ sopp la tontu ko nag liñ sopp la woowu moom alqawlu aati si mooy wax aji tuddal ne yaa hadikum yàlla jubal leen allaaw yàlla wéstu tam yéwén leen baalakum seeni mbir dégg nga boo tuddee nga wax alhamdulillah kala dégg na laa wax yarhamukallah yow it sopp nañ nga delloo ko ne ko wa yuslimu baalakum aw nga ne ko wala nga ne ko yaxfir allahu yàlla lanaa ñeel ñu wala kum ak ñeel leen boole baynuma seen diggante nag abdalu moo de dégg boo buñ buñ la ndokkee mu tisóori wax ko yahdikumullahu wa yuslihu baalakum yaxfirullahu lana wa lakum nga boole ñaari moo gën waaye boo ko ci wax baax na dégg nga bu fekkee nag ki tisóori xeefeer la mu tisóori boo ba pare wax alhamdulilah daf naan ko hadakallaahu yàlla na yàlla jiwal waaye bu ko wax yàlla na yàlla yërëm ndax yërmande yàlla moom ñu gëm yàlla ko moom da ko hadakallaa yàlla na yàlla jubal dégg nga walaay samir du ndokkeel aarisan aji tusooli ataa yaxmada bat mu sant allah yàlla ki tusooli nag kenn du ko ndokkeel lu mooy moom alhamdulilah bu fekkee dafa tusooli tawukul alhamdulilah su boobaa kenn di ko ndokkeel dégg nga noonu la walaa yaxlu dagal li muslimin li muslimin ñeen julit an yaajira mu tong ak kaaw mbokkam fooqa salaasati ayaamin lu kawe ñetti fan du dagan ci julit muy mere mbokkam julitam lu ëpp ñetti fan loolu dafa xaraam ñetti fan nag mën naa nekk waaye lu ëpp ñetti fan mënu nekk bu dee da ko yar nag ni ko jëkkër ju mere jabaram ngir yar ko loolu moom moo mooy xool rek kañ la yaru moom jubóog moom mën na koo mere bu ko neex na ko noonu waajur bu mere doomam wala sëriñ bu mere taalibeem wala boo ku gàdda ku mooy yàlla nga gàddaay ko ba ko yooyu yëpp daal bu fekkee loolu dana tax ñu ba lañ nekkoon su boobaa yaa xool rek heure bu la neex nga daal di jubóog ñoom de loolañ mene be rek comme que yar la wala jubanti la loolu moom dara nekku bu fekkee mere moomu du ko tax a jubantiku soo baa jërul nga leen mere li gën rek mooy ba déggoog ñoom bu dee mere mi ne xam ne leneen lu mu jariñ suuba man nga leen a mere de dégg nga walaayet naaja bu mu jeexal isnaani ñaar doon waaxit nu waris kenn ñaari nit duñ waxtaan ba kenn loolu dafa xaraam maanaam bu dee yéen ñett la ñoom ñaar ñu beew di waxtaan bala loolu dafay xaraam ndax suuba mën na laa tiitloo mën na laa jàqloo ba nga yaakaar ne ñii si yow la ñu wax nga déggee ne lépp luy jàkkuloo julit bu ko def dafay xaraam dégg nga <coughs> bu fekkee nag diisoo ngeen ko ba may leen ah su loolu dara nekku ci waaye bu fekkee wóor na leen it ne bu ngeen diisoo yéen moom du njort dara dégg nga te moom it noonu la du njort dara seen diisoo gi ngeen xam ngeen xam loolu mu wóor leen yéen ñëpp su boobaa diisoo googu waaye du yeggati ci xaram waaye jur dagal la jur ñeel góor mu weet bii ndaatin si jigéen joo xam ne lay su nekkut bi mahramin di xarmaan si la woo ko góor warul weet ak jigéen joo xam ne xaraamut bu dee la xaraam ni ki sa sa doom wala yenaa yu mel noonu yi nga xam ne mënu leen takk su boobaa mën ñoom waaye bu dee xaraamul na moom wéet googu dafay xaraam dégg nga ndax seytaane mooy li ñetteel te seytaane fu bu yàggee musiba am ci wala yajuuzu dagan an nazru xool ilayha dégg nga jëm ci ndaw lu jigéen loolu dafay xaraam kon daal jigéen a ngoog li gën daal góor moytu bañ a xool rek ndax na si borom xam-xam yi ñuy xaraamal xool gu xam ne sax bànneex ni ki imam Nawawi moom xool gu am tëb bànneex daf koo daf koo xaraamal dégg nga xool goo xam ne moom ko moom dañ koy xaraamal amma bu dee xool gi nga xool labat la wala yu demee noonu nga xam ne loola tax a ah su boobaa nag dara du ci nekk ndax ad-daruraat tubihul mahzuraat xaatimatun li am mottali la yan baxi dana yel insaan ñeel doomu aadama allah yura buñ ko gis illaa muhasiran lu mooy muy amal xasanatan yiw ñu maa di ñeel delluwaayam aw diraman wala diram li maa ci ñeel yel dafay yel na ci doomu aadama bu def dara lu mooy rek loo xam ne dana ci amee yiw pour wala dana ci amee xaalis boo xam ne dana ci mën a dundee wayetlu ko mu bàyyi maa laa yaani lu ko amul njëriñ doomu aadama lépp lu ko amul njëriñ ko ba te doom borom xam yi dëppoo nañ ne nit dara amul ko njëriñ lu mooy yiw loo ne dana ci fàggu yiw wala mu faagu ci beneen bu muy dundee bu dul loolu rek ba ko amul la njëriñ waaye tamit na wattu mi naf ci ci boppam waaye xifan na taxaw na maaskan ci lënt doomu bi na wattu ndi ko boppam ba ko dugal ci lu naqar yàlla lépp loo xam ne leerul ko dagan naam daganut na ci taxaw ba am ci lu ko leer door koo def wayen fu muy sedd jëli suwaa ji toog ak moom ci toog na ko sedd cër bu mu xiis ak bu mu ngi yëkkati kàddoom ci kaw kàddoom na ko cëdd daal ba mu waaj ne kat toog naag ku baax ba waaj yi gis boom ci jotaay boobu daal dégg nga na noyal loo ñeel ko jaane boo wàllam ku koo toogoon na nga ko noyalal sa bopp ba mu ne kat dëgg-dëgg daal mu ngi nekk ko xam ne yaatal na ko ci lépp waaye bu ko diisal xatal waaye foo na jële laan sa lati si tarxisam ki nga toog bu rëccalee nañ ko jëlale dégg nga wayel zongu na taqwa sabra muñ ki nga toog moom da nga fexe ba muñ ci manque manque nga xam ne moom nga gis ci moom waaw te jëlale ko fexe yow nag lu rafet rek nga def ko si diggante ma moom wen jaala sa dem toog na alima aji xam nazara na koy day jëm ci moom gaa yi illaali ci bëtu màggal soo toogee borom xam-xam na nga ko xool bëtu màggal ko ndax xool borom xam-xam rek jaamu yàlla moo xool kaaba gi dégg nga ak sa karam waajur ñooyam wayen sutu na setantal loo ñeel ko anal ma xaalis wax borom xam-xam buy wax na ko setantal setantal a xam ak ku bëgg a jariñu wayen raajowoon dem delantoona dem delantiku na ak moom raajowoon a delantiku ak moom dafa mu mën ngir dégg boo koy laaj wala mu wax nga dugal ci sa na nekk loo xam nii rek da ngaa mu gën a leer mu gën laa leeralal a dégg waaye du gàggante ko moo tax a jóg wala yaaydu bum gaarloante ak moom fi jawaabi saayilin ci tontu aji laaj yoo xam ne nii saalo laaj na ko de dégg nga bu fekkee dafa am dafa am ku laaj ab laajte mu tontu ko bu ci dugal sa kàddu ci ñàkk teggin wala boog ci dul xam-xam waaw amaa nag bu dee laaj xam ne leneen loo ci gis nga tontu ko ci teggin ak xam-xam loolu moom dara nekku ci waaye nga tontu ko fekk moom tontu na ba pare nga dugal sa kàddu ci dugalin bu ñaaw wala boog dugalin boo xam ne yoo xamoo sax li ngay wax da nga da nga di wax ci kaw waxam loolu moom baaxut ñàkkee teggin borom xam-xam la wa man naadara kuy jongante fi min ci xam-xam maanaam bu dee waxtaan ci xam-xam ca débat te ngeen wutee li ngeen wax fa na ngeen ko def bi sakinatin ci dal waqaarin ak wegeel wa tarki istihlaayi ak bàyyi jéem a kawe wa husni ta'anni ak rafet ak teey wa jamil adabi ak rafet ak yar kuy jogante ci xam-xam na nekk ci dal ak ci wegeel maanaam wegeel gi mooy na nga wekki nga toog ak boobul jublu wàccee ko waaye wegal yàlla boobul wax loo xam ne ni xamoo ko wala loo xam ne wóor na la du dëgg bul jéem a it yëkkati sa kaw sa bopp na nga teey tam teggin ci ni ngay waxee ngir rek dëgg feeñ waaw bul yàkkamti su boobaa mën ngaa la demal dëgg boo yàggamtee gaaw a nangu mën naa la nga nekkoon sax mooy dëgg waaye nga yàkkamti nga lëndëmal dëgg wala nga yàkkamti gaaw koo jumloo te fekk moom moo nekk ci dëgg kon daal la nga teey jonganteeg moom ngir feeñal dëgg ba bay dëgg di feeñ bu dëgg feeñee yéen ñëpp ngeen ànd nangu xanaa nekk wax ju rafet wax ju dal te am teggin fay nu maa naka ñaar ñooñu muy teey ak yar موي ناري ياري يعني وي ديمبال لا نيا طالب علم ساقم كم على طالب علم ساقم كم ساقو خم كم تي اك ام يار داك سي باخ داي ديمبال كو غيرا <clears throat> دا نانا تخ لو نيك مو توپو غا ريك با تي موجا خم سي لو لير والحمد لله تي لا نيال يال و دو موم دوم لا يالا على سيدنا سيدنا محمد محمد وعلى آله وصحبه وصحبه وصحبه وسلم تلولكم مسلم مرنا الكتاب تيري بحمد الله سنتي على تعالى كوينا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناس الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى وعلى آله حق, قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناس الحق بالحق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 ma julli ci yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam maa ngi yaakaar yawmal qiyaamati danga ma delloo ndénkaane loolu ndax lu la waaye dénk du sant yow yàlla maa ngi seede ne amul benn buur bu ñu war a jaamu lu ma yow Muhammad yonent Yàlla la an laa ilaha illa allah wa ashadu anna muhammadan rasulullah maa ngi lay seedeloo loolu di ko seedeloo sama bopp di ko seedeloo jullit ñi di seede ne amul benn bur bi war a jaamu lu mooy yow Muhammad jaamu yàlla yonentoom la maa ngi lay dénk seede googu yamal xiyaamati yaakaar naa ne danaa fekk ndénkaane loolu ñu ngi lay ñaanee rabbi ci làmmañ buy toroxlu ak xol bu mokk waaw ànd ak dañ ci bépp pexe ak ci kàttan lépp luñ jàngale ci téere yi ci commencement bi ba ci mujj gi yàlla nekk lu sell la ngir sa jëmm ci yàlla lu ci lëndëm woon yàlla nga ko leeral lu ci sellutoon yàlla nga ko sellal sa mbaax bi jaay rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam téere bi it yàlla nga ko def mu jaayum jullit ñi jàngale mii ñu ko jàngale yàlla na jëriñ jullit ñi bi jaay rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yàlla nga ko def muy njëriñ ñeel jullit ñi yaa rabbi bi jaay rasulullahi sallallahu alayhi bu def ko ci def mu muy tiyaaba te eh, peeseel ñu ko ci misaanul xasanaat yawmul xiyaamati yàlla mën nga loolu yàlla nañu ko defal yàlla yàlla nañu yërëm bis bu ñu dajeeg yow yàlla yàlla nañu yërëm bis bu ñu dajeeg yow yàlla nga ñu yërëm bis bu ñu dajeeg yow yàlla nga ñu dugal aljana yaa rabbi yàlla bu ñu toroxal ci àdduna ak ci àlaxira yàlla nga feesal suñ loxo ak àdduna feesal suñuy xol ak yàlla yàlla yàlla nga feesal suñu loxo ak àddina suñuy xol ak yàlla yàlla bu ñu tiitloo yàlla bu ñu jàqloo yàlla bu ñu bàyyi ci wattu keneen ku dul yow yàlla nga ñu wattu sa bopp yow kese yaa rabbi yaa rabbi fa kun lana fi saa'iri xaalaati yàlla nga nekk ñaan ñu si mbooleem xaal yi yàlla nga ñu mottali liggéey bii ñu commencé bañ firi mboolem téere ñu bëgg firi te mu nekk loo xam ne lépp dafay sell ngir sa jëmm te mu nekk loo xam ne dana njëriñ doomi jullit ñi yaay rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ah ñi ngi ñaan mbokk yëpp lu ci mànc ku ko gis nga mottali ko xam ne ci gàtt xam-xam ak gàtt lu ki ko doon jàngale la lépp lu ci mat muy te muy njëriñ ci yàlla la in uridu ila islaaha mastata'tu lépp lu ci manqué defar leen ko mottali leen ko ngeen jégal ñu rëcc ak lépp loo xam ne war nañ ko leeral leeral nañ ko xëy si suñu gàttaluñ la ñu ngi koy jégalu waaye in uridu ila islaaha mastatant wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu